su ko defee takkusaan tam na waxoon ne bu takkusaan yi suuf jotee ba ker yi jàppaloo naaj yu yéexatut foofu la muxtaam takkusaan yem la dale foofu nag bu jant bi so loolu lépp mi ngi bokk ci daroor yowm nga xam ne ñoom ñaar ñooy bokk daroor yi diwéy waaye bu ñu àggee nag ci jant bi bëgg a so la fa des ñu mën faa julli wenn waxtu rek dañ koy moomalee takkusaan bàyyi tisbaar kon tisbaar takkusaan yépp wax na seen muxtaar ak seen daroori yi wa maghribun timis muxtaaruha muxtaaram kul waxal ne xadruma mooy kem loo xam ne tusalla def na ko julli fii ci moom baxda sharatin ci gannaaw sart xolima bopp xameef na ko ka sitri suturaal awra wa xabasi ak laabu xabas xablal adanayni ci njëkk nodd ak liqaam wa tohoril xadasi ak laabu xadas fa jàll si ci muxtaarum timis ne timis moom muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu la wóoree ne jant bi sona nag muxtaaram dañ koy tollale ci jant bi sooyee nga teg ci diir boo xam ne mënees na fee laab sol fi ay yére jublu xibla nodd li xaam julli ñett rakka diir bu toll noonu daal gannaaw bu jant bi sooyee buñ ko ca tegee rek muxtaar timis foofu la yam am na nag yemukaay bu gën a yomb xam mooy nga ne mi ngi yem ci bu shafaq fàddoo shafaq mooy xonq-xonq yi des fi jant bi soxe woon bu demee ba raaf loolu moo tudd fàdduk shafaq am nañu ne foofu la muxtaaru timis loolu nag moo gën a neex a xam tumal xishaaw topp gee muxtaaru xaa muxtaaram ma mi maxi bi shafaq mi ngi bàyyi ko ci fàdduk shafaq li sulusi léegi li bi ci sulusub guddi ga sulus mooy ceer ittaqi na nga ragal yàlla su mën supp topp na daroori yal xisha wal maghribi ak timis ilaa tooxi saadiqil fajri ba ca fenkuk aji dëgguy fajar dafa wax ne gee muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu shafaq fàddoo maanaam xong-xong yi des fi jant bi soxe woon bu demee baraaf fa muxtaarum gee tàmbalee dana dema dem nag ba bari fan guddi gi ñetti xaaj fa xaaj bu njëkk ba waree am loolu nag day wuute ndax jamono yoo toll rek da ngay waxtu wa jant bay so ak waxtu wa ñu noddu salaatu boo ko defee nag ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba fu mu yem rek say boo xam ne fala moxtaarum geeyam mais na jamono juñ toll ñu ngi noddu timis daanaka sept heures yu tegal vingt six jëm vingt huit boo seetee waxtu wa ñu noddu salaatu du war a sori cinq heures trente quatre diggante boobu na nga seet def ko ñetti xaaj boo ko defee ñetti xaaj xaaj bu jëkk bi fu mu yem rek xamal ne fala la muxtaarum gee yem xam ne ko loolu day wute ci guddi gu nekk moroom ma ndax ni nga xam ne moom la waxtu yi soppi ko timis ak genn kenn ku ci ne fa nga waxoon ne fa la kenn ku ci ne nga waxoon ne fa la muxtaaram yem la fa dalee ba fajar fenk mooy nekk daroor yoom lu may nag buñ demee ba nga xam ne suñ diggante ak fajar di fenk genn julli mooy ca dañ koy moomale gee bi mujj te bàyyi timis kon nga wax ne timis faa waxoon ne fa la muxtaaram yam la fa dale ba fajar di bëgg fenk nga xam ne genn jullee ci xaj loolaay daroor yowm gee itam bu sulus bu njëkk bi maanaam ceer bu njëkk bi ci guddi gi bu jeexee la fa dale ba fajar fenk loolu mooy daroor yowm wajjaxal defal moxtaaran moxtaar li subxin ñeel suba min fu mu tàmbalee ci fenkuk fajar ila isfaarin ba ci ak set an laa gu gën a kawe xadd jalaa gog feeñal na lil wu jooxi ñeel kanam ya wa minhu tàmbali na ca set ga it mabda u daroori njëlbeenuk daroori yu ilaa tulooxi xursi shamsi waahibil ilaa ba fenkuk catul jantub yàlla mi aji maye xéewal suba moom muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu fajal xare ba leer gi tasaaroo bu baax foofu la muxtaarum suba tàmbalee dana dema dem nag ba bët di bëgg set nga xam ne boo xoolee kanamug nit te muuru ko da ko daal di xàmmee ne moom diwa foofa la muxtaarum suba yam daroor yi ba tàmbalee foofu nag ba catu jant bi fenk bu catu jant bi fenkee rek waxtu suba lépp jeex na desatul dara sumal xadaaw topp fay ga fil jamihi ci mboole seen yantami dana askanu li di dil awqaati jëm ci gannaaw yi lay waxtu xindal xàkkami fa aji àtte ja muy nag julli gune moo xam da nga julli ca moxtaar ma moo xam da nga ko ci daroor yi moom dañuy jàpp na rek joox nga ko maanaam julli nga ko ci waxtoom soo bàyyee nag ba yaar yaari waxtoom yépp jàll nga xam ne waxtoo ci mujj muy daroor yi jàll na nga door di julli jàpp ne kon da ngaa fay bor waaye li fekk yaari waxtu yi jeexagul rek maanaam muxtaar daroor yi jeexagul rek boo jullee jàpp ne ni jox nga julli ko ci waxtoom waaye am na teqale bu baax a baax ndax moom lay wax naa wan mi na nga askan azima zambi aji rëyi bàkkaar lil mu axiri ñeel aji yeexi julli xataa tafu taxoo ba dana ko raw bila xobrin ci lu ngànt duri bopp xameef na ko maanaam ku amul ngànt daa wara a farlu ba julli ca muxtaar ma mooy xaaj bu njëkk ba waaye su yeexee julli ga ba àgg ca xaaj ñaareel ba door di ko julli te amutoon benn ngànt dana am bàkkaar bu mag a mag rawante mu bàyyi ba yaari waxtu yépp jeex nga xam dara yu sax ba mujjoon jeex na mu door di julli kooku bàkkaar bu ëpp wut lay doon wa kuriha sibeef na naflu la laa qadaaul mansi di caageenu fay lu ñu fàtte baada subuhin ci gannaaw jullik suba li tolooxi samsi ba ca fenkub jant ba wa baada asrin ak gannaaw takkusaan li salaatil maxribi ba jullik timis wa baada fajrin ak gannaaw fenkuk fajar xinda kulli aribin fa jépp aji xellu mu ne nag daa naafi la naafila ak waxtuñ naafi la bu nu wóoree ne fajar fenk na moo xam nodd nañ moo xam nodduñu dañuy sib ku julli genn naafila lu may ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar moom loolu mooy waxtoom boo xasee julli ñaar rakkay fajar fa sa néeg door a ñëw ci jàkk ji te jàkk ji taxawaluñu dangay toog rek booba ñuy julli waaye doo saña julli ñaari ràkka ngir nuyoo ko jàkk ji mbaa dara da ngay toog rek noonu bu fekkee nag julliwoo woon ñaar rakkay fajar fa sa kër ba agsee ci jàkka ji te fekkoo ñu taxawal farata ji kon nangay nga julli ñaar rakkay fajar mu daal di wecci nuyoob jàkka kon nga takk foofu ne su fajar xasee fenk nga xam ne salaatu jot na moo xam def nañ ko moo xam defuñu ko doo sañ a jullee ci genn julli gu may ñaar rakkay fajar ñooñu dañuy sib ku naafila ba jant bi tàmbalee fenk ba bi tàmbalee fenk nag lenn li di génn te lépp génn gut moom naafila day àgg ci araam day weesu sib su jant bi fenkee ba lépp génn sib ga dellu si maanaam sib naafila dellu si ba ba muy yëkkatikul toll na ñetti meetar ci sa xoolu bët su fenkee nag ba yëkkatigul toll ne ñetti meetar ci sa xoolu bët la dal nay dagan soo nekkee nag foo xam ne mën laa seen jant bi nekk ci biir jàkka ji te nga bëgg a xam ba xam la dagan na walla daganut da ngay seet waxtu wañ noddi woon salaatu boo ci tegee waxtoog genn wàll rekk dana fekk jant bi fenk ba yëkkati ku toll ne ñetti meetar ci sunu béréb yi ba tey gannaaw julli takkusaan dañ fay sib naafila duñu wax ne gannaaw bu jàkk jullee mbaa yow ci sa bopp rek boo xasee joox takkusaan ba noppi dal nañu sib nga naafilaati ba ba jant bi tàmbalee so te lépp duggagut ndax bu jant bi tàmbalee so te lépp dugagut moom la day àgg ci araam bu jant bi duggee nag lépp lépp te julleeguñ timis it bu dee ci yoonu maal dañuy sib naafila gannaaw bu jullee timis ba àggal nag la doora dagan nga xam ne araamatut siba tuñu ko ñu bañ a fàtte ne julleeg néew moom fardu kifaaya la waaye dañ koy yemaleeg jullig la ci waxtuñ ko sibe ak waxtuñ ko araamale am nag luñ ca maye loo xam ne mayuñ ko ci naafila kese ndax gannaaw boo sëlmalee takkusaan la fa dale ba muxtaarum takkusaan di jeex te loolu mooy takkusaan yu suuf jot ba boo xoolee ker yi ñu jàppaloo naaj yu xaw xong li fi aguñu foofu rek mënees naa julleeb néew moo tax ñu bëgg kuy waajal ab néew ci gannaaw takkusaan mu fexe ba buñ sëlmale takkusaan daal di gaaw jullee ko balaa moxtaarum takkusaan a jeex ba tey itam gannaaw buñ sëlmalee suba sib nañ fa naafile waaye daañu maye ku fa julleeb néew ba li bët di xaw a set ba nga xamee ne bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko foofa la moxtaarum suba yemoon diggante boobu daañu maye ku fi jullee ab néew ba tey sujjóot sujjóotu jàng alquran noonu la mel gannaaw boo sëlmalee takkusaan dañuy sib ko naafile waaye daañu maye booy jàng xoraan ba àgg ci bérébu sujjóot li fekk muxtaarum takkusaan jeexul rek ñu may la nga sujjóot gannaaw julli suba itam noonu la li fekk muxtaarum suba jeexut booy jàng xoraan àgg ci bërëbu sujjóot daañu la may nga sujjóot lakin na dal wirdi waaye nag boroomub dog jawaasuhoo daganam ga yuraa def na ko gis la wëññal ko ida xalaba ndeem not na xay nay ci ñaari bëtam ña alkara ngëmeen la bu ñu nee gannaaw fajar fenkee dañuy sib naafi la ba mu des ñaar rakkay fajar daañu may koo xam ne daa amoon dogbum baaxoo julli guddi gu ne mu yeewu julli ko bi yoon nag mu biddanti daañu ko may bu fajar fenkee itam mu gaaw julli dogam boobee balaa julli suba waaye nag na fekk dulum tey nga xam ne bu fekkee yeewu woon na daa taayal rek ba jógut mbaa daa nekkoon ci leneen kon duñ ko may mu julli dog boobu day fekk kay mu biddanti nga xam ne teyu ko te mu mën a gaaw julli ko balaa muxtaar mu subaa jeex ndax duñ ko may mu nekk ci naafila ba muxtaaru suba di ko raw bu dee kuy jullee ci mbooloo itam na daal gaaw julli doog boobu fekkee ji mbooloo ma waaye bu ko jullik mbooloo ko naree raw ba tey na ko bàyyi wan naflu naafila in jalasa ndem toog na fawqal mimbari ci kaw mimbar ba imaamu jumhatin ilimaani jullit jumaa faqa dong kurhun ak sibley doon durigu xameef na ko bisu àjjuma bu ilimaan ñëwee ba toog ci minbar bi te tàmbalee a xutba dañuy sib ku naafila bu ilimaan tàmbale woon xutba nag moom bu dee ci yoonu Malik dañuy araamal naafila ndax dañuy jàpp ne xutba bi ak déglu xutba ba lépp farata la kon kenn du nekk di naafila di bàyyi farata dañuy wax ne sax bu fekkee ñëwoon na ba toog bu xasee seen ilimaan muy ñëw rek mu wër ko ne ci xutba ba la jëm kon daal nañu sib mu jóg di taxawal naafila ku ilimaan di ñëw nag fekk mu doon naafila day gaaw rek àggale ko waaye du ko dagg bu ñu nee waxtu sàngam nag sib nañ ku ca naafi la ku ca tàmbalee naafila daañu sopp nga dagg ko bu ñu nee waxtu sàngam dañ ca araamal naafila nag ku ca naafi la moom da koy war a dagg faw faw moo moo xam julli na lu ràkk wala julliwut lu matub bu ilimaan dee xutba am ko agsi tàmbalee naafila bu ñoo wóoree ne am na ràññee ci diine dañ koy bàyyi rek ca noona kenn du ko wax dara ndax gis-gis yi daa wóote foofu waa Maalik ñoom ñoo gisee noonu wa mën a ooxu tere nañ ko moom naafila baada jumhatin ci gannaaw jullit jumaa ida lam yaxruj ndem génnut al imaamu ilimaan ba masjidan ci jàkka xudan na nga jàpp buñ jullee julli jumaa gi ba sëlmal te ilimaan génn gut daañu sib kenn di fa tàmbali ak naafila su ilimaan xasee génn nag mbaa nga xam ne toog na fa loo xam ne génn xajoon na fa xëy na day nuyoo mbaa mu am fa soxla su boobaa kon mënees naa naafila li alquran ne fa ida salaatu fantashiru fil ard bu julli gi jeexee na ngeen tasaaroo ci suuf si tasaaroo googu mu digle sañ sañjën ko rek la jublu nekkut lu war ndegam dañoo aaye woon biñ tolloo julli xutba kenn di génn day wane rek ne ndegam julli gi jeex na ku bëgg a dem nag léegi sañ ngaa dem nag doxi say soxla sàkku ci wërsëgu yàlla ak ngëneelam ci kaw suuf si mel na rek ba mu aayee ku armal aj mbaa mu armal xumra muy rëbbu da caa teg ne mu ngeen yewwi ko ci armalu umra ba mbaa aj ba dem leen rëbb ji mooy sañ ngeen a rëbb nag ci yooyu jamono aaye ga jeex na fii it loolu rek lay tekki bu ilimaan ji jullee ba sëlmal rek julli gi jeex na xutba yi jeex na kon nag ku bëgg a dem am nga sañ-sañu dem loolu rek lañ jublu ci fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah bala noo génn buntub waxtu yu julli nu fàttale ne waxtu yu julli moom léegi yàlla def na ci xéewal daanaka foo mën di nekk rek ci àdduna bi man ngay am waxtu yu julli yi bu ne nga daal di xam fa waxtu julli wa tàmbalee ak fa mu yem saa yu nekk rek ñu ngi koy mën a am bu baax mën nga am at mi yëpp yëpp ba mat sëkk foo toll di ko xam faslun li ab dog la fii shurooti salaati ci sarti julli xadintaha jeex na alkalaamu wax ja fil awqaati ci waxtu julli ya fal aana léegi nan sarifu dana nu wëlbatiku li salaati jëm ci julli ne leeral nanu waxtu julli ba àggal kon danoo bëgg a wax nag sarti julli sart moom daa wuteeg farata ndax farata day dugg ca jëmmi loola nekk ca biir ba charte nag moom day génn ca bitti charte it mooy loo xam ne lañu ne mënu caa ñàkk bu ci amul rekk loola du am faaw rek mu am ca ni bu buñ nee laab sart la ci wérug julli bu laab amul rek julli mënta jaar fenn ba wér amma salaatu ndaal julli fa shurutuha ay sartam tahaaratul xadasi mooy laabu adas tumma tahaaratul xabasi topp laabu xabas fi taw bi ca malaan ma wal badani ak yaram wa wal makaani ak barab ba wa sitratul awrati ak suturaal awra bil kitmaani ca nëbb ga wastaqbil na nga jublu alxiblata xibla watruk te nga bàyyi alkalaama wax wa kulla fi'lin ak jëpp jëf li munaajaati salaami ngir deyaaleeg yàlla mi aju mucc ci ayub wa awratu rajuli awray góor duuna may nin ci dul fen maa mooy la nga xam ne bay na surratin nekk na diggante jumbax waru ko ba tey ni ak ñaari bati woom aman nisaa un daal jigéen ña fa jamiul jismi mboolem yaram wa yoo addu def na ko lim awratan muy awra la daal dil xilmi fa boroom xam-xam ba illa lazi ndare la nga xam ne ustus nii setteef na ko maanaam génneef na ko minal fay ni ci yaari teng ya wal wajhi ak kanam ga doona rasi ci ludul bopp ba war rijlay ni ak ñaari tànk ña sart julli ba ci njëkk a mooy laabug xadas xadas dañ koy firee toj fekk na daa doon loo xam ne boo ko làmbee doo ko daj boo ko xoolee doo ko gis waaye nag lañ wax ni moom ngay def ba mu deñ soo ko defee njàpp ne toj ma deñ na mel ne koo xam taqul seen sobe ngelaw rek moo génn ci buntu suufam mbaa mu dem ca wana wa sépp sobe su ko taqoon raxas na ko ba mu set kooku bu génnee taxaw dañu wax ne fi mu toll amee na am toj te fekk na gisoo ci moom seen sobe maanaam daal toj ma nekkut loo mën a làmb daj ko mbaa nga xool gis ko waaye nag toj maa ngi ci moom te la koy dindi mooy mu def lañ ko sant bu fekkee ne sangu farata la war a def na ko def bu fekkee ne jàpp la war a def na jàpp bu amee ngànt ba tiim nekk farataam mu tiim yett yooyu lu mu ci def rek te fekk muy farataam rek ñu jàpp ne toj ma yëkkatiku na dañ ko daa aaye ngir am toj aaye tuñu ko ko moom nag dañ koo diisal lool ndax su ko fàtte woon julli itam du tax julli nga baax mel ne ko war a jàpp julli fàtte ne jàpput mbaa mu war sangu farata julli fàtte ne sanguwul farata mbaa mu war a tiim julli fàtte ne tiimut yooyu yëpp julli nga du baax faaw rek day dem defi la ko war moo xam jàpp la moo xam sangu farata wala tiim la mu door a baax ñu ne toj ma yëkkatiku naa dem naa dem sax ba nga xamee ne fa waxtu wa dale ba waxtu wa jeex bu fekkee ne amu fa lum mën a laabe laabu ndox amu fa lum mën a tiime day jàpp ni julli googa wàcc na ko du ko fay wàcc na ko wàcc na ko rek benn yoon jooju wax moo ci gën a wóor laab gam ca teg nag muy laabu xabas muy laabu jëmmi sobe moom mooy dellu ci ay yéreem ak yaramam ak barab ba muy jullee balaa julli day wóorlu ne yaramam ak yéreem ak fa muy taxaw di julli amul sobe bu fekkee amoon na sobe itam dindee ne ko ndaxum mel ne moom muy jàppee ndax jëmmi sobe su ko taqee ci yaram mbaa ci ay yére mbaa ci barab mu dindee ko ndox moo xam ne bokkut ak mel ne moomuy jàppee di ki ndox mu am saabu dañuy jàpp ne jëmm ja dañ ne waaye àtte ba ba léegi ma nga fa mooy ba tey laabut ci àtte laab na ci jëmm waaye àtte ba moom ba tey mel na ne sobe saa nga ja bu ko mën a jullee ñàkk a sobe nag moom moo gën a wayaf ndax am na sax ñu wax ne bu julliwaalee sobe te tey ko mënoon naa tàggoog moom fàttiwu ko it du tee julli ga wér na waaye nag teewut wax ji gën a wóor mooy su fekkee mën naa tàggoog sobe sa te waxtu wa yaatu na faaw day fexe ba tàggoog moom mooy tax julli gaa baax waaye bu julli waalee sobe rek te amul benn ngànt julli ga du baax waaye moom nag bu waxtu wa xatoon niki mu julli ba ci biir fàttaliku sobe te waxtu waxat day wéy rek du sañ dagg julli ga day war a sàmmonte waxtu wa wéy rek ca julli ga moo tax sobe moom ku ko julliwaale ngir mën laa tàggook moom mbaa ngir fàtte julli nag ba sëlmal julli googa baax na dañuy sopp rek gannaaw ba soo mënee tàggoog sobe sa te waxtu wa des nga tàggoo sobe sa te baamu rek julli ga sàng awra itam sart la ci wérug julli mooy góor ak jigéen ku ci ne am nga loo war a sàng boo dee julli waroo koo bàyyi muy feeñ góor nag moo gën a néewale awra ndax moom li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom rek mooy awraam bu sàngee diggante boobu rek dal nay baax teew nag mu sol col gu rafet gu jekk ndax fonk julleek fonk yàlla mi muy taxaw ci kanamam lañu gën a taamu jigéen nag moom yaramam yépp awra la ba mu des kanam nga ak teng ya bu dee julli daa war a sol lu tal sàng fépp ba mu des kanam nga ak teng ya lu bokkut ak loolu rek war na koo sàng su dee julli nag bopp ba di feeñ mbaa baat ba mbaa loxo ya mbaa tànk ya julli googu baax na waaye dañu bëgg mu baamuwaat ko maanaam mu soloo na mu war a soloo te baamuwaat julli ga bu bañ a fàtte ne itam day sàng yaram ba lu tal waaye bu ko sàngee lu yaraax yaraax loo xam ne moog bañ sol ay yére ñooye moo du baax faw da koy sànge lu tal loo xam ne kenn du ne jàkk rek daal di janoog awra ja daal di janoog yaram wa loolu nag muy ci góor muy jigéen a ci yam la muy sàngee awraam daa war a nekk lu tal bu agul ci tal loolu itam moom bu mu doon lu yaraax loo xam ne ku ne jàkk rek di jàkkaarloog yaram waak awra ja bokk na ci sarti julli itam jublu xibla ndegam moom daa nekk màkk mbaa la ko wër nga xam ne mën naa jàkkaarloog jëmmi kaaba gi kon julli jàkkaarloog jëmmi kaaba gi rek mooy baax bu fekkee nag nekkul ca màkk nekkul ca la ko wër bu jullee jëm fa kaaba ga féete rek loolaay lañ ko digal moo tax jublu la moom daa yomb ndax wet ga kaaba ga féete rek nga julli jëm ndegam nekkoo makkaa la ko wër moom da nga jël rek jëm fa wet ga nga xam ne fa la kaaba ga féete nun suñ xibla daa xaw jëm penk ba noppi nag xaw a càmmoo ñu boole ci bu dee ci nun fii waaye daal foo mën di nekk boo jubloo wet ga kaaba ga féete rek loolaay sa waru gar sa jaan wàcc na léegi nag bari na jumtukaay yoo xam ne mënees na cee xàmmee xibla moom itam daanaka foo mën di nekk rek man ngaa dal di am jumtukaay bu la wan xibla ga dëgg-dëgg jar nga di ca sonnate bokk na ci sarti julli itam boo xasee ba tàmbalee julli nga bàyyi jëpp wax ak jëpp jëf joo xam ne mënta ànd ak julli bokkul ci julli ndax bu dee julli wax wax joo xam ne bokkul ci julli ga te tey ko julli ga yàq ko ba tey bu dee julli di jëf-jëf yu bari yoo xam ne bokkul ci julli lañuy ñuy xàmmee ne jëf yam jëf te bokkul julli bari naam bariwut mooy rek ku koy séen di nattable naa kii dee julleem julliwut loolu nag mën naa am ci muy julli di dox jëm ci kanam ba yàgg mu arrière jëmaat ci gannaaw nga xam ne moom muyut xibla benn yoon waaye tey baagan tey dem ak dikkaat loolu jëf la ju bokkul ci julli bu dee julli daal nay moytu di def leen lu bokkul ci julli ci xeetu wax mbaa xeetu jëf wakkarax na nga sib salaatan julli fi saraawi ci tubéy isa lam yakku ndéem nekkut shay'un dara fawqaxoo ci kawam tu jar kon def na la yool idan boobee mais nag sib nañu nga jullee tubéy kese rek te solo dara teg ko ci kaw mel ne bu nee góor awraam mi ngi tàmbalee jumbax ba ci bëti woom nga sol tubéy ñoddi ko bu ëmb jumbax ba te it na bëti woom ya boo jullee julli ga baax na waaye dafa rafetut dañoo bëgg nga rafet teggin solo cal gu njëkk ndax sàmm orma sa digganteeg sa borom waaye nag boo sàngi awra ji rek moom sa jaan wàcc na julli ga wér na def nga rekk lu ñu sib ndegam da ngaa sàng rek diggante jumbax ak bëtiwoom solaatoo leneen teg ca kaw jëkkaloo saw meloog saw colin lu may nag ñàkk ay yére tax nga def noona loola kon dara nekku ca ndax nit lu mënut kenn du ko ko teg wana ju sa taw bi aju sobewu malaan isa faqada ndem ñàkk na maa an am ndox waxadima te mu ñàkk as saw ba meneen malaan min baadil timaasin ci gannaaw sàkku fa innahu naka moom yusal yi dana jullee biha ak sobe sa in yaxaf ndem dafa ragal xorooja waqtiha génnuk waxtoom wa ka xaw li mën ci waxi ka nga xam ne xarafa xam na ba in yëkku ndeem dafa nekk mu wax xiran di aji yéexe julli mu ax xiran moo doon cosaan li xadami tahaarati ngir ñàkk laab fa xadd xasaa kon mooy na dan ni ami boroom xéewal ya ku bëgg julli nag sobe nekk ci yéreem mbaa ci yaramam te amut lum ko mën a dindee mbaa ba sobe si nekkee ci yére ya amul yeneen yére yoo xam ne yu laab la mbaa waxtu wa daa xataxat ba nga xamee ne su fi nekkee di jéem a dindi sobe si waxtu wa raw ko ba du ci am sax ab rakka kooku day julliwaale rek sobe sa jàppal ne dañuy sàmmonte waxtu ba nga xamee ne su fekkee ne sobe ngi ci moom mënta tàggoog moom mbaa bu dee jéem a tàggoog moom rek waxtu wi raw ko day war mu daal di gaaw julli sàmmonteeg waxtu wa julliwaale sobe sa su ne daay xaar ba mën a taamu sobe si door a julli far ba muy julli fekk waxtu wa jàll kon gàddu na bàkkaar mooy na yàlla boromam daa waroon a jëfe ndigal rek moo tax mu ne ku ay yéreem am sobe amul ndox mum ko mën a fóote amul beneen yére boo xam ne itam bu laab la bu mën a sol kon na julliwaale sobe sa bu ragalee ne bu fi nekkee di xaar waxtu wi raw ko na julliwaale sobe sa loolaay ndigal la su jëful ndigal rek daldi mooy yàlla boroomam gàddu bàkkaar mën lam yejut ku amut lil xor yi ngir rafle maa loo xam ne yasturu dana suturaale bi ci moom awrataxoo awraam sàllaakoon mu jullee kazaaka naka noonee fanta bi na nga yeewu koo xam ne daa raflee rafle ba nga xamee ni lu sàng awraam sax amu ko kon na julli def yaram mu neen rek ndax nit ku ne lu tële yàlla xam na ne mënu ko te yàlla du te kenn lu mu mënut kon nag ku rafle ba amut lu mën a sàng awraam na def yaram mu neen te julli wa muxti ul xiblati aji mooy xibla ma moorun ku ñu digal la bi an yoon yi da ci mu baamu fi loqati ci waxtu wa la yi da ci mu baamu fi loqati ci waxtu wa salaatan julli xay soxaan na fu fi gaare mooy fu fi feeñee wa kullu ma lépp loo xam ne yuhaadu def na ko baamu fil waqti ci waxtu wa la xayru du caagéenu ci lu dul waxtu wa fa innaha naka moom fadilatun ngëneel la nil te na nga am almuraada na ga wax ya moom nag mitlu naf li kem naafila la laa tuxaadu defu ko baamooti in xuruj waqtihaa ndeem génn waxtoom wa xat omina wóolof na ko yaqinan ci lu wóor nga xoolaat in ñu def ko ci xuruju ak yombal rek la waaye dañ koy bañ ci nax wax lu ci gannaaw nag bu ñu nee kuy julli mooy xibla day baamuwaat julli ga dafa am teqale koo xam ne moom am na lu mu daan tegtaloo ba xam ne fii la xibla gi maanaam fii lañuy ñu julli jëm ba mu ko defee bi yoon nag ba julli ba noppi door a seetlu ne ah moom kat ca dëgg-dëgg juumoon na foofa du woon xibla kooku julli ga baax na waaye daañu sopp nag mu baamu julli ga nde bu fekkoon ne moom waxtu julli daa jot mu gëlëm xamul fenn fu muy julli jëm gisul tam ku ko tegtal fan lay julli jëm ñu ne ko taamal fu la neex rek julli jëm ndax yow amoo pexe mu taamu julli jëm fu ko neex kooku moom duñ ko digal baamu mu des nag mu julli ba ci biir sëlmalagut yëg ne moom kat mooy na la foofu am na teqale su fekkee njàccaar la maanaam gumbawut ab gisam dara sikku ca te dafa mooy lu bare bari kooku faaw day dagg tàmbaliwaat julli ga su fekkee nag day gumba nga xam ne daañu ko may ngànt ci ñàkk gaa gis loolu doy na ngànt wala du gumba sax waaye lam mooy bariwut kum doon ci ñooñ ñaar day jublu xibla rek waaye du dagg julli ga kon jàppal ne koo xam ne moom dana gis bu wér wér waaye nag la mooy xibla tuuti la du dagg te wëlbatiku ndànk rek jublu xibla koo xam ne itam gumba la bu mooy lu bari ak mooy lu néew ñoo ci yemoo du dagg julli ga ndegam yëg na ko rek nañ ko wëlbati mu jëm xibla waaye lam julli woon baax na du ko dagg bu fàttee jublu xibla ba mu sëlmalee nag mu door koo fàttaliku kon julli ga baax na dañu sopp rek mu baax mu ci waxtu wa bu ñu nee baamu ci waxtu wa nag xamal ne julli ga baaxoon na ndax bu julli ga baaxutoon dañuy wax na baamu faw faaw waxtu wa jeex bañ a jeex ci yem te lépp lu ñuy baamuloo ci waxtu ci waxtu waxasee jàll jeex na du jara baamooti li mu ne julli gu ñuy baamu ci waxtu rek yem ca mook naafila ñoo yemoo baamu ga ngëneel rek la bu waxtu wa jàllee kenn du ko baamooti ne naafila it noonu la mel naafila bu waxtam xasee jàll kenn du ko fay mën nga caa génne rek ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar moom moom rek la ñuy fay ci mboolem xeetu julli yi nga xam ne duñu farata fay ga sax warut waaye nag mënees na ko fay ndax bañ a ñàkk tuyaaba la dale ci ba jant fenkee ba yëkkatiku lu ñetti meetar diggante baag tisbaar bu tisbaar jotee rek moom it fay ga yooyu na faslu li ab dog la fii faraidi salaati ci faratay julli haddu faraidi salaati li faratay julli yorafu def na ko xam laakin na ma siyoox waaye sëriñ sa ixtalafoo wóote nañu fii ca lim ba wa baaduhum lenn ci ñoom dakara tudd na xamsata xachara fukk ak juróom faridatan ci ay farata wal baadu ñenn ña tudd sittata xasara fukk ak juróom benn laakin ma waaye la nga xam ne dakara tudd na ko al axdari yu abdurahman al axdari yi aati danaa dikkee bi ci moom li yaxfada ngir mu wattu ko asabiyu gone daa dugg ci wax faratay julli yi mu ne faratay julli day lim bi lu ràññiku la lu ñu xam xam la waaye dañ caa wuute am nañu wax fukk ak juróom am nañu wax fukk juróom benn mu ne waaye man nag li al axdar yi abdourahman andi rek moom laay indi ci fii abdourahman nag dafa indi foofa fukk ak ñeent rek noonu la ko sëñ bi andee fii nag awwaluha aji jëkk seen niyatu naa mooy sunu yéene almuhayyanatu jarijuñu ràññeel sumata takk biiratuhoo topp kàbbaram ba almubayyanatu badi bu ñu biral way woowu am na ñaari farata daa wax ne yéene boo njëkk ci faratay julli man naa wax ci xelam ne yéene naa julli sàngam rek daal di wax allah akbar sus ca fa saasa mbaa mu wax ci xelam ne yéene naa gii ndegam julli googu daa teew bu waxee ci xelam rek ne yéene naa gii daal di wax allah akbar rek mu daal di doy taamuñu muy wax yéene ja laata muy tàmbali naa yéene naa tisbaar rawante na mu di ca boole bis baag taamu wuñ ko lu may nag nga xam ne xelam day jax jaxi su waxut loola rek di nattali ba xam yéene naa yéene wut loolu doy na sëkk daal mu wax ci xelam ne yéene naa julli sàngam daal di wax rek allahu akbar mu doy sëkk ndax yéene moom mooy doog rek ci def lépp la doog ci def ko rek yéene nga ko daa yomb yomb ba nga xam ne bu nit bul ko def te fekk mu ànd ak sagoom dana ko jaaxal ndax faaw nit daanaka lu muy def te ànd ak sagoom rek dana ko di yéene yéene ji faw day ràññiku bu dee tisbaar day yéene tisbaar bu dee takkusaan takkusaan bu dee timis timis bu dee gee gee bu dee suba suba ràññil yéene ca mënu caa ñàkk teewul nag bu ne yéene naa gii rek ci am xelam gii moom teew gam teew mooy tax mu daal di ràññi ko ñaareel ba mooy wax allahu akbar bi mu njëkk a wax ci julli gi xam ne moom dañuy bëgg mu sësaloog yéene ji dana ko wax léegi dañuy lëkkaloo ñoom ñaar allahu akbar bi mu njëkk wax ci julli gi farata la wa mithluha am kemam la fatihatun fatiha tumal qiyaamu topp taxaw ga li ajli haatayni ngir yile yaar kama nassa naka yaxale al imaamu ilimaan ba ba tey way woowu am na ñetti farata ndax allahu akbar ja boo ko dee wax nga taxaw wax ko ndega mën ngaa taxaw taxawaay boobu dafa nekk farata nga xam ne su ma nee taxaw ba noppi nag toog wax allahu akbar jooju julli ga du baax jàng faatiha akub taxawaay mi tam ndegam mën naa taxaw jàng faatiha ga day nekk farata ba muy jàng faatiha ji mu taxawit doon farata nga xam ne julli farata moom bu ca mënee taxaw ba noppi toog du baax paw rek bu dee kàbbar ak bu dee jàng faatiha lépp day taxaw ba waññee nag kàbbar bi faatiha ji kenn ku ci ne nga boole jóg taxawaayam day nekk ñeent boo ci boole yéene ma nga njëkkoon wax nag muy juróomi farata ngoog kon waaye nag bu ñu nee jàng faatiha farata la bu dee ci yoonu Malik dañuy wax kay jiite wala muy julli moom dong la jàng faatiha yi nekk farata ci moom waaye bu am ku koy jiite rek ka koy jiite bu jàngee rek jàngale na ko lay sunna mooy ka koy jiite bu dee wax ca kaw moo xam moom mi ngi koy dégg wala déggu ko danga xam ne ne ilimaan day biral rek lay sunna mooy moom mu ne pat bañ a wax dara dara bu ilimaan dee yellu di wax ca suuf nag ñu sopp muy jàng di wax ca suuf ndax am xelam bañ a nekk ci leneen waadut limal rukkoo xan rukkoo suma rafan topp siggi min hu bàyyi ko ci rukkoo was jut te nga sujjóot xalal jabahati ci ab jë war fa te nga siggi min hu ca moom way woowu ëmb na ñeenti farata ndax daane rukkoo farata la rukkoo nag mooy boo sëggee rek ba say téng jege say bëtiwoom rek rukkoo am na waaye dañoo bëgg nag nga jàpp ci bëtiwoom yëpp bu dëgër ba wàññeeru ko mu ànd juróom yee mu juróom benn nga boole ci siggee ca rukkoo ba na nga sëggi rukkoo doo jàll rek sujjóot faaw da ngay siggi siggi googee farata la mu juróom ñaar sujjóot moo juróom ñetteelu farata siggee ca sujjóot ba itam mooy juróom ñeenteelu farata waxut da na lim min xaa ca farata ya al i'tidaala yemoo ga wa kasaaniki nii xaddu tuma'ninati lim dal ga uxita jàppeef na ko an hum jële ci ñoom al daal mooy jubug cër yi xocc at tuma'ninatu mooy daluk cër ya ku ci ne mën na am te moroom ma du am daluk cër yi mooy loo yàkkamti yàkkamti foo toll ci julli gi ne tekk ba cër yi dal boo rukkoo ne tekk lu néew néew ba cër yi dal boo siggee noonu boo sujjootee noonu boo siggee noonu jubug cër yi nag moom nuñ gën a feeñe ci boo rukkoo ba siggi ak boo sujjootee ba siggi ak boo toog ak boo toogee di taaya mbaa nga toog diggante ñaari sujjoot ñi boo rukkooyee ba siggi dañoo bëgg nga dellu ba taxaw jonn ba mel ne ba nga sëggagutoon ba sujjootee itam nga delluwaat ba cër yi melaat na meloon lépp jub xocc mel ne ba nga sëggagutoon sujjoot nga xam ne boo jàppee ci say woom xaw a siggi tuuti rek te delluwaatoo mel na nga meloon daal di gaaw jàll sujjoot da bàyyi farata rawante ne nag na nga sëggi woon rek jàpp ci say woom nga daal wéy rek sujjoot te siggi woo sax fara siggi bi ci boppam day farata waaye nag sikki ba àgg ci cëree jub xocc cër ba del na meloon ba nga sëgg a gutoon di sujjóot ak ba nga sëgg a gutoon di rukkoo loolu farata la kon na sàmmoonteeg cër yi dal lu mu yàkkamti yàkkamti ne tekk ba cër yi dal di sàmmoonteeg cër yi jub xocc ci bu siggee ci rukkoo ak bu siggee ci sujjóot ak bu toogee na muy toogee rawante ne bu dee bëgg a wax asalaamaaleykum lépp rek ne cër yu jub mel nañ war a mel cër bu ne nekk fa mu war a nekk boo wàññee jubug cër yu xocc mooy doon fukkeel ba boo ci booleen dalga muy fukk ak benn tartiibu naa ak sunu toftale baynal faraidi diggante farata yi toftale farata yi te mooy tàmbalee yéene ak allahu akbar teg ca fatiha ab taxawaayam teg ca rukkoo ak siggi mujje sujjóot ak siggi ca ràkka ba yooyu di def noonu nag ba asalaamaaleykum mujj ca mu tegalee noonu farata la bu julli njëkk a jàng fatiha te kàbbarut kàbbaru armal bi julli nga du baax bu julli tàmbalee ko asalaamaaleykum du baax faaw mu toftale rakk bi nam tegaloo wéy nag ba asalaamaaleykum mujj ca loolu kon mooy fukk ak ñaar assalaamu ak sëlmal ba juloosuhoo akub jataayam moom sëlmal ba min al tàmbalee ci al ilaakum ba ci kum yaa xulaaman yow as ngóor fukkeel ak ñetteel mooy wax ga muy wax assalaamu aleykum farata la ba tey toog ga muy toog di wax assalaamu aleykum farata la ba yàkkamti woon ba jóg di dem di wax asalaamaaleykum mbaa mu yàkkamtee tëdd ba tëdd wax asalaamaaleykum julli ga du baax faaw rek li mu ne tàmbalee ci al ba ci kum al ji boorun bind assalaamu alif ak ngay njëkk a bind waaye nag si soo sa mooy tax doo jàng al salaamu asalaamu ngay jàng doo jàng al salaamu waaye teewul kon diir ba ngay waxee asalaamaaleykum nga toog ko farata la mënta ñàkk fukki yeeg ñeent moom la al axdar yi wàññi bi itam indee ko nam ko indee wa shartu niyatin sartu bi yéene la dal alaami fa alam ya xiraanuha mooy ak lëkkaloo mëpp takbiratal ihraami kàbbaru armal mooy nag boo yéene julli gi dañuy sart mu lëkkaloog wax gi allahu akbar loolu nag bëgguñu ngay jax-jaxi ba defe ne defoo yéene ji boo naree jax-jaxi daal say wax ci sam xel rek ne yéene naa julli sàngam wax ko ci xel mi daal di wax allahu akbar fi saasa ñu sësaloo jubluwuñu nga jéem leen a lëkkale lëkkale goo xam ne sam xel day jax-jaxi ci def naa lañu ma santoonam déet yéene na maam yéene moom daal bala naree jafe nag nga jàpp li la waxoon rek wax ci sama xel ne yéene naa julli sàngam daal di wax allahu akbar fa saasay saasa xaddul faraidi li mu faratay intaha jeex na mooy mat na xunaa fii xalaamaa ci kaw li nga xam ne xadd xakaa nett li na ko al axdari yu al axdari alxaawi na xulaa may aji làq kawe ya mbaa nga teqale ne alxaawi kay aji làq alxulaa kawe ya ka am ay kawe rek lañ ci jublu dana li mu farata yi ni ko Abdurahman al Axdari indee mi ngi noonu indee naa ko noonu ba mu mat faslu li ab dog la fii sunanihaa ci ay sunna moom julli wal nati nanu dikkee baxdahaa ci gannaaw farata ya bi àddi sunani ci limub sunna ya wa bil fadaili ak ci ngëneel ya bi nazamin ci aw way xasanin wu di aj rafet min haa bokk na ci sunna ya al iqaamatu liqaam wa suuratun aku saar talat woo topp na fatihatan fatiha maa xiyaamin ànd taxawaay xadd sabata bopp sax na mu ne gannaaw bi indee farata yi ba noppi kon nan indi sunna yi bu sunna yi jeexee teg ca ngëneel ya dafa jëkk a tudd liqaam liqaam sunna la boo xam ne moo gën a dëgër sax noddu teg ca saa bi ngay jàng ci gannaaw fatiha ci ràkka bu jëkk ak ràkkab ñaareel ci mboolem julli farata yi mboolem julli farata yi ràkk bu njëkk ba ak bu ñaareel ba gannaaw faatixa ja dañ cay teg saar jàng saar woowee nag sunna la nga boole ca nag taxawaayu saar wa jàng saar wa day sunna ba nga koy jàng itam nga taxaw di sunna wasira yalu wal jëxër ak biral xuddaxoo nanga ko limaale kazaaka naka noone wa sami allahu liman xamidahu ak wax ne sami a dégg na allahu yàlla liman ñeel ko nga xam ne xamidahu sant na ko daa wax ne fu ñu la dégale wax ci suuf nga wax ca suuf fu ñu la dégale biral wax ca kaw nga wax ca kaw lu ci nekk sunna la fañ diglee yàlla mooy boo julli tisbaar ak boo julli takkusaan ak ràkk bu mujj ca timis ak ñaar ràkk ñu mujj ca gee fañ diglee biral mooy ñaar rakkay suba ak ñaar ay ajuma ak ñaar rakk ñu njëkk ca timis ak ñaar rakk ñu njëkk ca gee ba tey boo dee julli yow dong wala ngay jiite boo rukkooyee ba siggee ca rukkoo ba sunna la nga wax samihallahu liman hamida fa kullu takbirin bépp kàbbar siwaamaa ndare ba nga xam ne xuddi ma jiitaleef na ko fa sunnatun sunna la ala ittifaaxil ulamaa ci dëppook way xam ña mu ne nag allahu akbar yi ñuy wax ci julli boo xasee weesu ba ci jëkk rek ci des yëpp sunna lañu allahu akbar ba ngay njëkk wax moom dañoo waxoon ne farata la ñu koy tudde kàbbaru xarmal waaye bu bokkut ak moom rek ci yi ngay wax ci julli gi yëpp sunna lañu waxaaga saani ki nii at tashahudaani yaari taaye wal juluus ak jataay ba ilab tidat taxliili ba ca tàmbalik sëlmalu yeweeku xaala fa wax na ko ar raisu kilifa ga julli goo xam du suba rek dana am ñaari taaya suba nag moom fekkee kenn rawula ca benn taaya lay am waaye gu bokkut ak moom lu néew néew mu am ñaari taaya buñ la ca rawee sax mën na am nga taaye lu ëpp yaari taaye ba ci ñeenti taaye jàppal nag ne taaya bu mu ca mën doon rek sunna la moo xam taaya bu njëkk bee moo xam bu ñaareel bee boo demee nag ba ci jataay ba nga xam ne ca ngay sëlmale moom yent dafay tase yu bokkul àtte ndax jëmmi taaya ji day doon sunna ab jataayam nekk sunna da nga cay teg nag ne julli ci yonante bi jataay ji nga nar a sëlmale sunna la ab jataayam itam sunna la ñaan bala ngaa sëlmal la ngay ñaan boo ko mënee wax ci arab duñu taamu nga wax ko ci weneen langue waaye su fekkee li nga bëgg a ñaan yàlla mënu ko wax ci arab mën nga ko wax ci làng wa nga mën ñaan googu lu ñu sopp la ab jataayam ba tey lu ñu sopp la ak nag wax nga asalaamaaleykum dañ ne woon farata la ab jataayam itam muy diir ba ngay waxee asalaamaaleykum moom itam farata la nga xam ne kon yéen da tase foofu yoo xam ne leen lu ci nekk moo ko jotaayam ñooy bokk benn àtte lu doon rek ci àtte jataayam loolu lay doon taq taqdimu naa sunu jiital fatihatan fatiha xaal suwari ca saar ya yoon rafu def na ko xam sunnatan muy sunna la daa ahli nazari fañoñ setantal xam-xam nga njëkk a jàng fatiha door nag saar wa sunna la boo njëkkoon a jàng saar wi door a jàng faatiha da nga bàyyi sunna taslimatun aku sëlmal taaniyatun bu di aji ñaareel lil muqtadi ñeel aji roy xalaa imaamihi ca ilimaanam ja sit na nga dolli ishaaratan junju ba tey bu amee ku lay jiite boo sëlmalee boo wax asalaamaaleykum bi nga xamee ne mooy farata nga waxaat nag beneen ndànk jëmale ci moom mooy nga delloo sa ilimaan sëlmal wax asalaamaaleykum yalu ko jëmale ko ci moom mën ngaa junjëg sa bopp jëm ci sa një doonte sax fa nga toog tolloowut ak moom ni ki yaa mujj ca sàppe sa te moom ma nga ca digg ba du tee rek mën ngaa junjëg sa bopp wax asalaamaaleykum ndànk jëmale ca moom muy sëlmal bi nga koy delloo moom sa ilimaan sëlmal boobu sunna la wa misluha am kemam la taalisatun sëlmalu ñetteel loxoo ñeel maa moom xalaaman ca ka nga xam ne kaana nekkoon na fi yasaari yi ci ab càmmooñam faq fu na nga mooy na topp almala mbooloo ma ba tey bu fekkee na ngeen tooge woon di julli am na ku la féete ci càmmooñ te doon sa ilimaan da bokkoon rek rang ci rang bi di julli kookee la féete càmmooñ sunna la boo waxee asalaamaaleykum mi farata nga waxaat asalaamaaleykum ndànk jëme ci sa ilimaan nga wëlbatiku nag moom ci sa càmmoñ wax ko ndànk asalaamaaleykum ba tey sunna la day fekk nag ki la féete càmmoñ am ci julli ga lu ma tub ràkka su fekkee kenn féete wala càmmoñ mbaa ka la féete càmmoñ la mu fekk ci julli ga matul benn ràkka kon doo ko delloo sëlmal kon jàppal ne delloo salmal ku la féete ci kaw noonu ñu ko waxee sunna la waxudda na nga limaale min sunna ni ci sunnay julli yaa saaxibi yow sama àndaale aljahra biral ga aydan ba tey bi salaami ci sëlmal ba alwaajibi ba di aji war waxaaga saani ki nii salaatunaa sunug julli ala rasooli ci yonante ba sallaa yàlla na dolli tedd nga àllahi ci moom man yàlla ma nga xam ne ata may na la ñel ko alwusoola àgg xanitu jublu naa fi tashahudi ca taaya ja al axiri ja aju mujj wa sajdatul an fi ak sujootu bakkan xalal mashhuri ca la siiwe wal kaffi ak téng war rukbati ak batiwoom atraafil xadami ak cati ndëggu la bokk na ci sunne julli yi asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata nga wax ko ca kaw te bañ koo déey nga xumbal ko ca na nga koy waxe sunna la ba tey taay ja nga xam ne ca ngay sëlmale nga julli ci yonante bi bala ngaa sëlmal sunna la taay joo xam ne roo ca sëlmal moom danga nga yem ci fa taay rek waaye nag ba ñu ne sujjóot farata la itam sujjóot ak jëba moo nekk farata waaye sujjóot ak bakkan dëpp say téng mu tolloog say nopp ak sukk say bëtiwoom ca ba ngay sujjóot ak sa cati baaraami ndëggu samp jëm suuf nga boole yooyu yépp noonu ca sujjóot ba sunna la sujjóot ak bakkan bi say téng nga rëppeel ko mu tolloog say nopp duñ bëgg nga bàyyi say loxo ca gannaaw li gannaaw duñ bëgg itam muy jiitu lool lool da ngay say loxo na tolloog say nopp rek bu ko defee nag nga sukk say bëti woom cati baaraam nag itam samp jëm suuf nga boole yooyu daal ca ba ngay sujjoot sunna la wa sutratun ak sattir li xëyri ma moomin ñeel kudul ma moom ya umm kook dana jublu ani danaa jublu bi ci moom alfadda kenn maxal imaam yi ànd ilimaan saxal imaam aqalluha gën jaa néewam duri xameef na ko la alaami fa xalam ya xalam ci cosaan day fi aw doj dañ ci jublu nag boroom xam-xam yu siiw yu mag ya muxiladu rumxil hoodi mooy talaayu xeeju bant mbaa nga ne rëyaayu xeeju bant ma tooli jiraahi ànd guddaayu xasab xëyru mu was wisin te du aji jax-jaxee xel mu daaman mbir muy lu ñu saxal daanaka tey boroomuk set yaa na wattu xi dañ koo def an ndax taxawee ci ci way wi rekk kenn rekk kuy julli wala ilimaan jee jiite bu ragalee ne balaa sëlmal am korom bu ci kanamam kon sunna la muut satir sunna la satir nag mooy loo xam ne daal lu mu gàtt gàtt dana guddee ne xasab lu mu sew sew dijj ne ab xeej mbaa nga ne dijj ne yat wu dijj nga samp ko fi sa kanam mbaa nga tëral ko lu ci nekk baax na dañuy sart itam nag bu nekk luy jax-jaxee sam xel na ne teg bañ di yëngatu te na set bañ amee seen sobe bu fekkee nag fa ngay jullee regaloo kenn romb fa moom du aajowoo nga di ko wut waaye boo jàppee ne mën naa bala ngaa sëlmal am korom fi sa kanam sund la nga wut sattir soosu mën ngaa fekk nag garab rek nga taxaw tolloog moom def ko sattir mbaa sa oto bi nga gaaree sax ndegam yaa ko gaaree yow mën nga koo def sattir moom daal mën ngaa fekk bant buñ tëral rek te matale sarte nga def ko sattir dañu bañ nga defee ne faaw yaa ko wut def ko fi sa kanam nag fekk na lépp lu mat sattur rek mën nga ko fekk fa ko yàlla bàyyi nga taxaw mu nekk sa kanam nga def ko sattur ni ki bu dee ci jàkka ji kenn ya nga xam ne mooy nekk ca biir mën ngaa taxaw kenn li nekk ci sa kanam nga def ko sa sattur nga xam ne kenn romb sa digganteeg kenn la faslu li ab dog la fii fadailiha ci ay ngëneelam moom julli wa in tasal ndeem da laaj xan jumlatil fadaili walis mboolem ngëneel ya fexe ko jàppal xaddaha seen bu mu ne la su fekkee ñoom nga soxla déglul ma waxal la leen rafon li ya day ni yëkkati yaari loxo ya xadwa uddunayka ba mu tolloog sa ñaari nopp la daa takk bii rek li ihraam yi fa kàbbaru armal xadd ba daa feeñ na min ha bokk ca ngëneel ya ngëneel bi mu wax mooy boo dee julli bay wax allah akubar ba nga xamee ni moo ci njëkk nga yëkkati say loxo ba tollook say nopp am na ñuy wax ba tollook say mbagg mbaa diggante mbagg yeeg nopp yi waaye fii moom ba mu tolloog sa ñaari nopp la wax yëkkati loxo yooyu ngëneel la boo kàbbaroon rek te yëkkati loxo yi itam du tee mu baax walhamdu ak wax rabbana walakal hamdu baxda raf yi ci gannaaw siggi min rukkoo hin bàyyi ko ci ab rukkoo dil fas di ñeel kenn wal ma moom ak ma moom dil xudoo hi kadi boroom ak gannaaw boo siggee ci rukkoo ba te fekk ngay julli yow dong daañu sopp gannaaw ba nga waxee samihallahu liman hamida nga xam ne moom sunna la nga wax rabbana walakal hamdu mbaa nga ne allahumma rabbana walakal hamdu loolu na mën naa mu bett la maanaam nga jàpp ne boo dee jul yow dong doo wax rabbana walakal hamdu boo dee jul yow dong boo siggee ci rukkoo ba def sunna samihallahu liman hamida dañu sopp nga tegaat ca wax allahumma rabbana walakal hamdu mbaa rabbana walakal hamdu maamu mooy koo xam ne am na ku koy jiite koy jiite mooy wax samiha allahu liman hamidah ba mu siggee ca rukkoo ba ka ànd ak moom nag mu di ko jiite muy maamoom kookaay wax rabbana walakal hamdu maamu moomu mu wax rabbana walakal hamdu ngëneel la ci julli waxee ko saa niki nii at ta'miinu wax amiin aydan ba tey lahuma ñeel ñoom ñaar fi sirri ci yelu aw fil jahri wala ci biral indal xulamaa i fa way xam ña amal imaam daal ilimaan fa yaquluha dana ko wax la dal israari fa yelu ga faqat faqat dong bila ijhaarin ci lu dul biral ku jàng faatiha ba mu jeex teg ca amiin ngëneel la su fekkee ne moom dong mooy julli moo xam day yelu moo xam day biral waaye moom rekk ànd moom ngëneel la bu jàngee faatiha ba mu jeex mu teg ci amin amin mooy yàlla yàlla na nga nangu ñaan su dee jiite nag moom bu dee ci yoonu Malik taamuñ taamuñ muy jiite di biral